jërë ngeen jëf mbokki Sénégal mbokki bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi koy suivre lamb actualité lamb te di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Bawal TV mardi le 13 décembre ci atum 2022 ñu xëy ñëw ak yéen ci journalu sunu lamb fekkati fay affiche am le 24 décembre ci atum 2022 diggante ba ki nga xam ne nii moom moo di Gamou Gueye la journalu sunu lamb bu xëy xam ne ne boo moytuwul li nga xam ne nii moom moo di ndaw rabbi ndey peccum ndaw rabbi ndey dina am ci boobule combat waaye ñàkk jëriñoo Jackson journaliste sunu lambo xëy di ñu xamal ne le 25 décembre ci atum 2022 combat la boo xam ne nii day derby la diggante caare a ak géejawaay journaliste sunu lambo xëy jàll ci face to face bu ñu doon def moom Balla Gaye de xam ne nii moom moo di Boy Niang muy face to face électronique bu tàng jër journaliste sunu lambo xëy xam ne ne càppaacoli bi daal ak ki xam ne nii moom moo di les lions géejawaay ñoo xëyoon ni mel waaye moo di Balla Gaye ni ma moo di Boy Niang la mu xamle moom moo di combat la day combat bu nar a tàng tar la la ñuy waaye ki a xam ne nii moom moo di diggante Sarko ak Ada Fass le 15 janvier ci atum 2022 journaliste bu xëy di ñu xamal ne combat bu doy waar ndax ki nga xam ne nii moom moo di Ada Fass daan ki nga xam ne nii moom moo di Sarko du nekk surprise ci lamb waaye ki a xam ne nii moom moo di face à face bu ñu amal diggante soq bu ndaw ak ki nga xam ne nii moom moo di Talfa samedi la ñu war a jàkkaarloo muy seen combat diggante ki nga xam ne moo di soq bu daw ak talfa ka def lu ni moom moo di Modou Baye Fall journalu sunu bu xëy di ñu xamal ne caatu jolof ak ki nga xam ne nii moom moo di waaye journalu sunu bu yemul foofu diggante Sa Thiès for cent francs le premier janvier daañu amal li nga xam ne nii moom moo di seenu face to Boy Niang 2 journalu bu xëy ñëw moom ak communication quel adversaire pour ki nga xam ne nii moom moo di Joni journalu sunu bu day la mu xam ne moom moo di soq bu ndaw deuxième journée ce dimanche diggante bébé jéen ak ki nga xam ne ni moom moo di gàkku de présenté nañ leen au public journal sunu ram ba xëy xamal ñu li ni mel Sambala Kalmudoor journal sunu ram ba xëy ñëw ci li nga xam ne ni moom moo di xëtum sunu ram bu gën ci andi yaatal Boy Faye Brodé Noir waaye ki nga xam ne ni moom moo di Adrien Singa réunion dans la terre ce dimanche journal sunu ram ba xëy xamal li ni mel moom Balla Gaye 2 ak ki nga xam ne ni moom moo di Boy Niang 2 moom Balla Gaye 2 la mu ko xamal moom moo di Boy Niang combat ku ci gën a daj ay coono yu métti rek day yàlla na yàlla may ndam moom Boy Niang 2 la muy xam le daal moom moo di Balla Gaye 2 daañu bëre daañu xeex bu yeboo nga def ko ci sa xel te jàpp ko bu baax yéen ñi koy suivre lamb actualité te di ko suivre ci télévision bu mag bi xam ne moo di Bawal TV du kenn bu ma topp waaye ku jooy da pour la ko dara Thiès xombay bambay altundangal mag sew kabaak laaña kër daama kër seer jàllundul ak patar kër Ibra Yaasin sambe ngewel sambe kool dala ba daaru xafoor siyaare sëriñ Jonglor Kër Mate Diouroup Fissel Mbadane Louga Ndar Tivaouane Ndiaye Fass Fann Médina Gueule Tapée Grand Dakar ñëpp ak yoonu lamb ak Baol TV sekk na la troisième catégorie en